أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk jullit yépp nuyu jullit di nuyoo bu sell te di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu boroom subhaanahu wa tabaraka wa taala mu boole ñu sotti yërmandeem ci kaw suuf ginnaaw loolu ñu dellusiwaat ci sunu jotaayu yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu fàttali konte ak xamlante ci sunu wàllu diine ci jotaay bii di yóbbulum ndaw ñi ñu nekkoon ci téere bi ñuy wax tasawwadu sixaar sunu bunt bi mujj biñ doon jàngale ci sunu jotaay bi weesu mel na ni jàngale woon nañu lan mooy farataay xaj ak ñaata la ci ab lim ba yegg si woon ci bunt bi jàngale sunnaay xaj ñaata la ak yan ak yan la bu ñu bàyyee xel nag jàngoon nañu sunnaay xaj ne fukk la ak ñaar fukk ak ñaar yooyu tamit limoon nañu ci ñeent yu njëkk ya kon dafay des juróom ñetti sunna ñeenti sunna yi njëkk a jàngale mi ngi aju woon ci armal ja sunnaay armal ja ñeenti sunna yooyu kon nag dañuy fas yéene yeggale juróom ñetti sunna yi des ci sunnay xaj bismillah moo tax mu ne wattu xat def na lim li tawaafi ñeel na tawaaf tawaaf nag ko waxee muy wër kaaba gi arbahun ñeenti sunna min xaaca moom wër kaaba gi mooy tawaaf masyun dox wa xublatun ak fóon bi fammin ci gémmiñ aw bi yadd wala ci loxo ramlul rijaali ñukkum góor ña fii salaasil uwali fii salaasil uwali ci ñett yu njëkk ya su maddu haa u topp ñaan yan jal yi dana feeñ fi tawaafi ca tawaaf ba waa arbahun aji ñeenteel seen di sax yi ñeel na dox ga xublatul xajar ak foon dajwa isa zahar ndéem génn nga minal masjidi tukkee ci jàkka ja li safa jëm safa ak marwa ga sayaaniyatul arbaxi arbaxi ñaareelu ñeent ya hinda xudwati roytiif ba suhuuduhu mooy ak yéegam bayna safa diggante safa wal marwati ak marwa wa surxatul rijaali gaawum góor ña fii batnil masiri ci batnil masir saalisatul arbaxi mooy ñetteelu ñeent ya fii xawlin nabil ci waxi aji xelu ja summatara bi xatuxaa topp ñeenteel ba duuna fanat ci dul fen duxaa uhu mooy ak ñaanam faw xawuma ci seen kaw ñoom ñaar bi xayri xadd ci lu dul daytal mooy ci lu amut am yamukaay mu ne kon juróom-ñett sunu yooyu kon ba ca njëkk mi ngi nekk ci ñeenti sunu yi nga xam te ni dafa aju ci tawaaf bi muy wër kaaba gi ñeenti sunu yooyu nag mooy ba ci njëkk mooy dox dox gi ngay dox booy wër kaaba gi nga bañ a nekk koo xam te ni da ngay war dara wala dañ lay boot wala ñu tungoom la ci boo ko mënee nga dox ko mu kon sunna la ak fóon wa ngay fóon doj wa ñuy wax alxajaratul aswad fóon boobu nga koy fóon ci sa loxo ci sa loxo ci sa gémmiñ bu dee mën nga ko bu fekkee ne xatut nga dem ba yegg ci doj ba fóon ko sa gémmiñ bu dee nag dafa xat nga mën cee teg sa loxo nga teg ci sa loxo raay sa loxo fóon ko bu dee tamit ba tey ba tey dafa xat ba mënoo cee raay sa loxo boo demee ba yegg ci doj ba nga junj ko fóon ko ci sa gémmiñ junj ak ñu ko góor ñi bu ko waxee mooy kaaba gi dañ koy wër juróom ñaari yoon ñett yu njëkk yi dañuy bëgg góor ñi buñ koy wër ñu bañ koo wër ci dox ndànk ñu xaw a gaawal seenu dox muy ñett yu njëkk yi ak ñaan gi ñuy ñaan ci booy wër kaaba gi di ñaanal sa bopp di ñaanal mbokk jullit yépp di ñaanal képp ko bëgg a ñaanal kon ñeenti yooyu mooy ñeenti sunna yi nga xam te ne dafa aju ci wër kaaba gi mooy dox gi ak fóon alxajarul aswad ak gaaw gi ngay gaaw ci ñetti wër yu njëkk yi ak ñaan gi ngay ñaan muy ñeent mu limaat ñeent yoo xam ne dafa aju ci safaa ak marwa ba ca njëkk yi mooy dox gi ngay dox ginnaaw boo xamee ne wër nga kaaba gi ba pare ba war a jëm nag ci jëm safaa da ngay da ngay jaar ci doju alxajarul aswad fóon ko fóon koo xam ne day mel ni fóonu tàggoo fóon googee sunnay safaa la bokk ak marwa ak yéeg gi ngay yéeg ci diggante safa ak marwa ndax safa ak marwa dafa am bu nekk aw dafa am doj bu mag boo demee ba àgg safa danga war a yéeg bu àggee marwa tamit danga war a yéeg kon yéeg googu ngay yéeg ci dojoo boo ko mënee bu dee góor nga mën a yéeg nga yéeg sunna la bu dee jigéen tamit te xatut nga xam ne doo bokkante te mën ngaa yéeg nga yéeg ak booy def safa ak marwa ba àgg fi ñuy wax batnil masin moom la ñuy wax ñaari poto yu nëtax yi dañuy bëgg bu dee góor mu gaaw ba àggee ci digg ba àggee ci diggante boobu ñuy wax batnil masin mu gaaw yokk ni mu daan ni mu doon dox yi ñeenteel ba mooy ñaan nga muy ñaan ndax bu yéggee bu yéggee ci safa ba yéeg ci doj ba ba jàkkaarloo kaaba gi dafay ñaan heure bu yéegee ci safa ak marwa yi day day di jàkkaarloo kaaba gi day day ñaan ñaan googu tamit amut am limite da ngay ñaan ba ba fam la neexee rek nga door a bàyyi amul ne da ngay ñaan fii la yem wala dara kon ñeent yooyu mooy ñeent yi nga xam te ni mooy sunnaay safa ak marwa yi kon boo ko boolee ak ñeent yu njëkk ya muy juróom ñetti sunna ak yu ñeent yu njëkk ya kon boog muy fukk ak ñaar kon sunnaay xaj fukk la ak ñaar mu ne xaatimatun lii ab mottali la kon nag dafay dugg ci mottali gi mu bëgg a wax kon sunna yi foofu la yam mu ne xaatimatun lii ab mottali la ruuya soloo nañu an xayril baraaya jële ci gën di mbindeef mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne am na man naka ka nga xam ne yaxuul dana wax fil xalan ci lu feeñ bax dat tahaarati ginnaaw làpp ashadu mooy ashadu lil aaxiri ba ca mujj ga tëf taxu def na ko ubbil isa boobee abwaabul jannati buntu àjjana ya lahu ñeel ko li yan fusa ngir mu wëy min ayi hinna ci bu ko ci soob min ayi hinna ci bu nekk ci ñoom saa a soob na ko yadxul dana tàbbi walakin waaye nag xulfuhum seeni wuute fii zamanil fatihi jamonoy ubbi ga injalaa ndem feeñ na mu ne kat lii ak mottali la ci lim la waxoon ci jàpp ci mujjantalu jàpp gi ci jàpp ba pare mu ne lii kat ak mottali la ci loolee ndax mu ne képp jëlee nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne ci ab hadis ne képp koo xam te ni jàpp nga jàpp gu sell jàpp gu rafet nañ la ko diggalee nga defee ko noonu ba pare nga téen ci kaw xool asamaan si bu dee asamaan fi nga nekk asamaan dalaa tiim baax na bu la asamaan tiimut nga téen say bët rek xool ci kaw wax baat yi ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdahu wa rasuluhu mu ne loolu boo ko waxee bam jeex nañ la ubbil bunti àjjana yi nga taamu ci bunt bu la neex nga tàbbi ja mu ne waaye nag am nañ ci ak wuute ne ci jamono jooju ndax ci jamono jooju lañ koy ubbi wala jan jamono lañ koy ubbi kon am nañ ci ak wuute waaye nag li ci ëpp solo mooy dinañ lu ubbil buntu àjjana bi comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu wax rek lu wér la kon loolu lu am solo la kon baax na ci képp kuy jàpp mu fexee rafetal ak njàppam te bu jàppoo ba pare mu wax baat yii mooy ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdahu wa rasulahu te bu koy wax mu téen ci kaw xool asamaan bu dee fa mu nekk asamaan amu fa tamit na téen ay bëtam rek wax lii bu waxee lii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dinañ ko ubbil buntu àjjana yëpp mu tàbbi ca bunt bu ko neex kon loolu lu am solo sakara sant na rabbahu boroomam al ilahu kay buur ahmadu ahmad mooy ahmadu bamba xaadimu rasuul mu ne walay sa yanhuhu dé déet mu koy jubale asan lor aw kamadu wala njàqare sakara sant na rabbahu boroomam ba alal musaffahi ci aji ramm ji alayhi yàlla na nekk ci moom xayru salawaatil anfahi gënjaa sell xéewal yàlla mi aji jariñe istara jënd na minhu ci moom ahmadu bamba albaaxi yàlla mi aji des ma biixan am njaay maa kasa déet muy lamb walay sa yan xuuxu déet mu koy jubale saxaa an ak teexee di awaasat wala kiñaan mu ne kan wax ji nag waxi boppam la bokkut ci lee mu ne moom sëriñ bi sant na yàlla yàlla mi nga xam te ni mooy boroom sant na ko sant gi nga ko sant nag mooy suñu boroom jubaliwu ko du ko jubali mukk benn mbir moo xam day lore wala muy benn njàqare suñu boroom musal na ko ci yooyu yëpp kon loolu mi ngi koy sant yàlla waaye mi ngi santaat yàlla ci baaxe gi mu baaxe jullit ñëpp mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye rawatina moom nag ci boppam moom ci Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul moom da cee raw mu ne tamit mi ngi sant yàlla ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy ñaanal daal di wax na tamit mi ngi sant suñu boroom ci jënd gi mu jënd ab liggéeyam jënd jënd goo xam te nii jënd na ko moom suñu borom liggéey suñ Tuuba muy liggéey bu boo xam te lépp matal na ko suñu borom jënd ko jënd goo xam te nii du ko xàcc mukk te du ko jubale mukk ak ak texee di wala ak xe iñaan ko ba suñu borom du ko jubalee mukk ak texee wala ak iñaan ba ilaa yawmi diin kon mi ngi sant yàlla ci suñu borom mi nga xam te ni moo ko defal loolu du ko jubali lenn luy ak lor wala ak njàqare waaye sant na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu baaxee jullit ñëpp mu yërmande waaye rawat na moom Sëriñ Tuubaa da ci rawate waaye mi ngi koy sant ci liggéeyam bu tedd bi mu jënd jënd gu lew gu dog goo xam te ne ni du dog mukk ba ilaa yawmi diin musal ko ci lépp loo xam te ni ak iñaan la ak texee ak ak texee kon nag mu jamale foofu bunt boobu mu buntu xaatima bi kon bunt bii di ñëwaat mu fas yéene jàngale nit kiy julli ñu raw ko ci ak julli naka la koy defere mu bunt bu am solo kon nag ñu ngi wàccee kàddu yi fii di ñaan ñëpp jàmm di ko sàkk ci yéen di wax na lépp lu fi dëng rek wala lu fiy juum te am rek ci suñu jëmm yu xeeb yi la lu fiy juum nag ñu xam ne ci jëmmi suñu borom ji subhaanahu wa taala rek la ñi sàkku ci ñëpp ñaan tey ñaanal ñëpp suñu borom dafa ñu tawfeex mujj gu rafet xewal yu bayte barkeel suturaal ñu tey ak ëllëg in uridu illa al islaax masataxtu ma tawfiqi illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh